par le Niger euh, bari na africain yuy critiquer euh, l'ambition prêtée à la CEDEAO de vouloir intervenir euh, les trois juntes militaires en tout cas aujourd'hui joxante nañu loxo di menacer la CEDEAO gis naa ne la junte la mu ngi proposer une transition de trois ans président de la République Macky Sall moo jël le le le Euh, il essuie même des critiques de la part de Sénégalais mais ñu bëri dañoo jàpp ne euh, Sénégal ne devrait pas prendre la lead euh, intervenir au Niger peut être dangereux pour notre pays et ils prennent comme cas d'école le cas libyen lan nga ci xalaat bu njëkk bi bu njëkk bi laa wax est-ce que aaju na ab nit parce que yor na ngànnaay rek war na mun jël réew c'est anticonstitutionnel. donc bu ñu ko nangulee militaire nañ ko nangul jihadiste yi ah. kon bu kenn dugg ci xeex bi ñu bu ñu ko nangulee militaire wala gendarme wala policier nañ ko nangul jihadiste bi nañ ko nangul mercenaire bi nañ ko nangul borom alal bu am ay milliards mun jël milice mu mun nangu réew mi démocratie c'est le plus mauvais et le moins mauvais des systèmes qu'on a pour ensemble choisir nos boo ci xam ko tane wax capitaine ou un colonel ce n'est même pas le plus gradé de l'armée xam nga man d'accord naa sax ñu ne waaye coow li amoon na parce que c'est une question de troisième mandat vous avez trois trois trois ou quatre configurations hein la Guinée c'est un problème de troisième mandat au Mali le président venait d'être réélu pour son deuxième mandat donc xam nga ni kenn mënul wax ni troisième mandat la au Burkina le venait président venait d'être réélu pour son deuxième mandat Au Niger, même chose. Au Niger, il venait d'être élu. Non, il venait d'être élu. C'était même pas, c'était son tout premier mandat. waa léegi fan lañ ko teg léegi nag ils savent et malheureusement il y a la complicité des élites supposées panafricanistes africaines et c'est ça qui est dommage c'est des lâches sur ce sujet-là ils sont lâches vous ne les entendez pas parler de la Centrafrique est-ce que xam nga Centrafrique ils ont fait une réforme constitutionnelle waaw où sont les élites africaines qui prônent la limitation des mandats da nga leen ñu wax ci parce que maintenant c'est un pays qui est peut-être sous influence d'une autre puissance coloniale mais maintenant si nos élites panafricanistes sont financées par d'autres puissances qu'ils le disent mais c'est y a, y a, certaines de ces intellectuels là disent que Macky Sall ci boppam la légitimité pour porter ce combat là parce qu'il a fait emprisonner son principal opposant le premier mais lui il n'a avoir du respect pour les soldats sénégalais waaw mais il n'a qu'à avoir déjà du respect pour les soldats sénégalais qui sont morts au Mali dafa am ay doomu Sénégal qui n'ont rien à voir avec la guerre au Mali mais qui considèrent que le Mali c'est un pays frère le président sénégalais di le Mali c'est mon frère c'est mon pays frère on était d'ailleurs dans un même pays du dëgg ay doomu Sénégal dee foofu yow yaa ngi wax ci situation nga bëgg a ŋàññi suñu njiit réew bëgg la neexee sax ŋàññi ko parce que mën nañ ko tontu mais qu'il ait l'amabilité de s'incliner sur la mémoire des soldats sénégalais maintenant qu'est-ce qui se passe moi je comprends pas les jeunes africains waa léegi da ngaa ne palansooru France da ko bëgg dindi xam nga palansooru France bleu blanc rouge la léegi bleu blanc rouge bi nii la def n'est-ce pas nga bëgg changer ak beneen palansoor bu tudd Russie moom tamit yàlla def la sax mu nekk bleu blanc rouge bu ngeen bëggee dañu war a moom suñu bopp dama koy àbb bugaan dañu war a gëm suñu bopp ñun africains yi dañoo war a gëm suñu bopp ba pare balaa ñuy lijjanti ji yeneen nañu bàyyi di changer njaati gi man je ne crois pas en l'hégémonie russe sur l'hégémonie française je crois que l'Afrique elle-même et c'est ça la mission de la CEDEAO xam nga lan la ñu échoué ñun mooy que nos gouvernants refusent de renoncer à un peu de légitimité ou de légalité sur leur territoire au profit d'ensembles économiques forts et c'est ça qui est dommage l'Europe aujourd'hui dafa nekk une puissance économique parce que mais Europe c'est combien de pays c'est combien de langues mais nangu nañ ànd ci wàllu koom jàkkaarloog Amérique jàkkaarloog Chine jàkkaarloog Russie mais ñun lan lañ def aujourd'hui est-ce que xam nga lan lañ mënoon jëlee Sénégal jaayi ko euh, feneen tey jii la filière par exemple dama la koy wax rek dama la jox benn exemple la filière euh, anacarde mooy Darkase fan la am. Ziguinchor. non Afrique la am. Ah. Afrique occidentale. Sénégal Ziguinchor. waaw ah, eh, ah, mais c'est ça l'aberration d'ailleurs en plus est ce que am Ziguinchor foofu ñi fa nekk c'est les Indiens qui ont leur franchise dans le port voilà. ki bien ah foofu pour dugg fa nag c'est une forteresse. ñoom dañuy dem rek jaay eh, jël ko ci gars yi yóbbu. mais c'est cinquante pourquoi on cinquante milliards annuellement. mais au nom de quoi on va permettre ça loolu mooy moom sa bopp bañal loolu moi je suis président de la République je refuse ça. Je refuse que nos productions agricole ne servent pas à créer une première chaîne de valeur ajoutée. et c'est ça qui est fondamental mais exportateurs yi ñoom euh, dañ dañ ci gis seen bopp. mais comment comment tu peux comprendre ça la filière oignon. parce que on n'a pas créé euh, une possibilité de d'absorber ça dans le marché. si. Euh, non on si. au niveau local. créé wu ñu les possibilités à ce moment tu refuses tu crées les premiers échelons de transformation ici dans le pays moom laa lay wax ci menuisier ba moom nga war a def ci agriculteur ba moom nga war a def ci éleveur ba il faut créer les échelons de transformation ici. moi je ne pense pas à cette industrialisation d'envergure donc Afrique mhm. loolu moo nu manqué mooy ku ne li mu am ci wàllu koom am na marché déjà bu mag bu nga xam ne mënoon na ko am su suñu biir mais au lieu de ça ñu ngi wuti njaati gi la France elle a beaucoup dans le cadre du partenariat économique avec nos pays ils le disent pas nest la la la la c'est vrai beaucoup de pays waaw ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous fait elle nous a rien la Russie elle nous a offert quoi les états de nous-mêmes Pourquoi nos élites africaines de la France pour, euh, pourquoi on va pour embraser la Russie, c'est Pourquoi continuer avec le même système monétaire Il y a beaucoup de questions sur lesquelles... C'est pourquoi je te dis, il est bon que l'expression démocratique soit là. Parce que cette campagne électorale, elle est inédite.